yow mi am jafe-jafe ci wàllu néew kàttan sa ndoxu awra baaxul wala sax sa awra nooy kaay ma jox la solution bi ci gën a gaaw produit 100 pour cent baa ngi nii muy produit boo xam ne dafa naturel amul benn effet secondaire dañu la koy jox nga boole ko lem ak limon di ko naan matin ak soir mu daal di saafara say jafe-jafe neexal sa biir néegu sëy am nañu pommade boo xam ne boo ko diwee ci sa awra mu daal di kuy dëgëral di jël ko waaye nag du ko guddal ma ne la bile pommade moom itam dafa naturel lépp D'où le jural Ben effet secondaire Je ak ñun yow mi ko yittewoo ci 77 751 59 59 wala 76 313 93 94 ñun suñuy produit dañu la koy jox nga am ci satisfaction totale boko amul ñu daldi lay dello sa xaalis ñun rek ñoko Assalamu asalaamaaleykum ami cher fidèles internautes ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen dalal jàmm fii ci biir VIP People TV di rafetlu tam ànd da ngeen di ànd ak suñu ay programme mbégte képp la ñuy am saa su di jënd ak bienvenue dans votre émission journal VIP comme nous l'avons koy présenté tous les jours les li nga xamante ni rek actualité la bu avons mi fii la ñuy ci rek daal euh, information l'état du Sénégal va réclamer des dédommagements financiers à Ousmane Sonko. Lors d'un point de presse tenu ce jeudi 24 août, le pôle d'avocats en charge de la défense des intérêts de l'état du Sénégal a exposé ses arguments contre une campagne de dénigrement international. La conférence avait un double objectif, informer l'opinion publique nationale et internationale sur les développements judiciaires actuels tout en rétablissant la vérité légale euh, Madame Dal démb avocat yi nga xamanteni rek euh, ñom ñoo jël euh, manam di défendre intérêt bu état bu Sénégal ràññee nañ ci démb ki nga xamanteni rek mom moy maître Elas Diouf Ñom nag né nañu dañuy défendre intérêt bu état bu Sénégal ci li nga xamanteni rek mom moo fi amoon ci ay yàqu-yàqu bu sukkandiko ñom ci seen wax ci manifestation yi nga xamanteni xamante ni moom moo mars 2021 ba juin bi ñu genn lepp lo xamanteni rek yàq nañ ko fi ci ay infrastructure bu état bu Sénégal manam d'al ki nga xamni mom mo woté won woon boobulee fitna muy Ousmane Sonko lepp lo xamanteni rek yàq nañ ko fi ci ndodam lañ ko teg te mom moo koy euh, fay euh, te dinañ ko yobbu ba fu mu waxane doone benn loolu daal lañ njëkk ci demb ci sen conférence de euh, presse ba ñu ñëw aussi ci mbirum Juan Branco mom Juan Branco Branco nag euh, mi nga xamante ni dañ koo aye woon mu dugg fi nga xamante ni rek moom mooy ci réew mu jéem ay pexeem euh, ba dugg ci li nga xam ne rek moom mooy Sénégal ginnaaw bi ñu ko tegee loxo jàpp tam ñi nga xamante ni euh, ñoom ñoo ko jàppale pour mu dugg ci li nga xam ne rek moom mooy réew mi ñu ngi xamal ni daal ñu ngi woy ba tey di jàpp ay nit yi nga xamante ni daal ñoom ñoo ay complice am ku ci mel ni mbër bi di usine doole ak du Diop di contrôleur des impôts arrêté nañu leen démb euh, ba defeere leen ak ki nga xamante ni rek moom mooy njooguloo xarit ci ki nga xamante ni rek moom mooy maire bu sàngal Sangalkam bi di Pape Sow ñu ñëw euh, ci euh, média bu Sénégal maanaam daje bi nga xamante ni rek def nañ ko démb fële ca maison de la bu Babacar Touré maanaam mu nekk trois jours yoo xamante ni dañoo fa yéene waxtaanee lan moo sooxe li nga xamante ni moom mooy presse bu Sénégal ak yan solution lañu mën indi ba maanaam li nga xamante ni moom mooy problème bi daal di euh, saafarawu ñoom daal ñu ngi tuddee euh, mbir mi assise nationale de euh, médias noonu lañ ko tuddee waaye nag ki nga xam ni moom mooy Bamba Kassé mi jiite Synpics yëkkati na fa nag démb ay kàddu nee na nag nañu ñemee wax li nga xamante ni moom mooy ñuul ci soow mi te ñu ñeme koo seppi daal di koy sànni kàddu yooyu daal la ñu yëkkati foofu démb ñu war ko amal trois jours yoo xamante ni dañuy waxtaanee lépp li nga xamante moom moo li nga xamanteni rek moom presse bi ak problème yi nga xamanteni amna ci ñu aussi ci yenen information liste électorale nul ne peut radier une personne dont l'état de contumance est dépassé euh, mom l'enseignant chercheur en droit public de euh, université Anta Diop Cheikh Anta Diop bu euh, Dakar Mouhamadou Ngouda Mboup li mu wax nag leer na nee na kenn mënul euh, radier nit euh, ci état de contumace boo xamante ni rek dafa dépassé loolu la daal di xamle nee na nag Ousmane Sonko leader des euh, patriotes conserve l'intégralité de ses droits

d'un bâtiment à rufusque ce que préconise Khalifa Ababacar Sall mon ancien maire la ville de Dakar bi daal yëkkati na ci ci euh, bâtiment bi nga xamante ni rek moom moo daanu te am cinq personnes yoo xamante ni ñàkk nañ ci seen bakkan ñi ay blessé yu méttee métti ginnaaw bi mu jaalee famille victime yi ba noppi di métti li nga xamante ni moom moo fa am mu ngi ñaan ñi nga xamante ni ñoom ñoo ci am ay gaañu gaañu ñu jëlee ci li nga xamante ni rek moom mooy euh, wér maanaam moom lu mu souligné euh, moom xalifa Sall nee na nag l'importance de la protection civile ci suñu ay communauté waaye des normes de sécurité yu mag ci nga xamanteni rek mom mooy chantier de construction yi ak bépp chantier bo xamanteni jamono ji euh, mu ngi euh, ci ay travaux yo xamanteni ni mu ngi en cours nañ ci jël ay matukaay yu mat seuk ndaxte nag li nga xamanteni mom mo am feulé nek na lo xamanteni rek lu euh, metti la ba nopi aussi protéger kat yi nga xamanteni rek dañuy risquer sen vie manam éviter dal li nga xamanteni dal mom mo am feulé ci Rufisque daal dit Amat. la plateforme chemin de la libération appelle le régime de Macky Sall à respecter les principes constitutionnels la lettre de protestation de la plateforme dénommée le chemin de la libération a été déposée ce du 24 août 2023 au siège du ministère de l'Intérieur, les membres de la plateforme protestent contre les interdictions arbitraires et systématiques des manifestations pacifiques Madame Dal, euh, li nga maintenu plateforme le chemin de la libération Une euh, lettre de protestation la déposé ministère de l'Intérieur manam Dal ñom lu ñuy protester mom nous a ah, sa bu ñu def sen ay manifestation rek ñu daal di leen koy euh, Macky Sall ak régime na respecter les principes constitutionnels euh, arrêter ñu gëna les interdictions systématiques des manifestations et à garantir le droit fondamental des citoyens exprimés d'exprimer leur opinion euh, pacifiquement C'est boobu lettre nag ci la Nous avons li nga nous avons rek leen metti le droit de se manifester un pilier fondamental de suñu démocratie et que rek moyen essentiel pour

¿Verdad? une proposition de loi visant à rendre Khalifa Sall et Karim Wade éligible euh, loolu d'Adi euh, Hamle, di xamle moom Aïda Mbodj député qui inscrit au nañ ci agenda une proposition de loi pour Khalifa Sall ak ki nga xamante Karim Meïssa Wade Nous mun a bokk ci li nga xam rek élection yu jëm mais au Sénégal ci boppam ñoom ñoo opposé woon ci loolu le mbir et que rek gi Marie insisté woon na ba déposer proposition de loi boobu mais Khalifa Sall ci boppam moom moo ko wax na ko daal di euh, retiré ci lay altercation am seenub euh, euh, diggante nee nag lépp lépp dañ ko planifié woon par Macky Sall ak groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar ndaxte ñoom la ñu bëggoon ñu initier li nga xamante ni moom mooy projet de loi portant réhabilitation de Karim Wade et Khalifa Sall euh, ñu bëgg a taxaw nag euh, ne askan bi dafa opposé wu pour Khalifa Sall ak euh, Karim Meïssa Wade bokk ci li nga xamante rek mom moy élection yi léral yoy daal la Aïda Mbodj indi woon nee na nag loolu c'est totalement faux dara amu ci ñom projet bi ñom ñoko ko initier mais xex mo ci am té lu ñu bëgg won mom moy Macky Sall def boobulee mbir ñu ñëw ci yeneen information les échos confirment que les deux agents du GIGN font partie de la garde rapprochée du PM. E deux éléments du GIGN, groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, mi nga xamante dañ leen a arrêté woon lu 2 milliards ci faux billets selon les informations nous ñu ngi xamal ay garde rapprochée yu euh, premier ministre Amadou Ba ginnaw rumeur yi nak ba mu euh, ci li nga xamanteni rek mom APR des informations confirmées par les échos qui précisent que les deux font bien partie de la sécurité du PM à Ba les échos ont confirmé que les di confirmer nee que les lu ni mel lu accu ñaar mais les échos se demandent quelle est la responsabilité du premier ministre dans les agissements en dehors du service d'un membre de la sécurité loolu daal la ñu xamle nee responsabilité la ci euh, premier ministre Amadou Ba am ci li nga xamante rek en dehors ci ay services am ñu ko doon euh, rendre la ñoom nag jàpp nañ ni daal euh, coup la boo xamante ni dañ koo tegal Amadou Ba mi nga xamante rek dafa déposé manam wala dafa samp ndëndëm ci wara a fi président Macky Sall ci élection yi ñu jëm en 2024 ñu desandi ba tey ci nous nga des éléments rek élément GIGN euh, ce qu'a ordonné le général Moussa Fall ginnaaw bi leen loxo euh, placé leen sous mandat de dépôt nous ñett ñëpp euh, ñu ñuy xamal ni rek ñu ngi leen di association de malfaiteurs trafic interne intérieur et blanchiment de capitaux Lol dal lañ leen di euh, topé, teg nañ leen ak sen complice bi di El Koumis mi nga rek originaire de Nyagis, moom de ñu njëkk a teg loxo fële ca euh, Saly ginnaaw ñoom ba ñu euh, yëgee di daw ba fa xaalis ba carte professionnelle ci lañ identifier sax ba mais le général Moussa Fall au commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire a été mis au parfum des choses compte tenu de sa de la gravité gravité des faits Mom nak lumu ordonné moom mooy dal loi bu 10 nañ ko tek ci sen kaw ñom ñi nga xamanteni rek ñom ñoy deux agents GIGN yi def bobulé euh, njaaxum ñu ñew ci géejawaay 18 jeunes de Pastef envoyés en prison les arrestations dans les rangs de l'ex-parti Pastef se poursuivent manam ñi nga xamanteni rek ñom ñoy euh, wa Pastef arrestation yi nag mu ngi gën euh, di woy dix-huit jeunes yo xamante rek euh, placé nañ leen sous mandat de dépôt té bokk fa li nga xamné euh, mom moy ci Pastef par le juge d'instruction du deuxième cabinet ñu ngi xamal ni dal feulé ci guédiaway lañ leen tegee loxo pour acte terroriste té force de l'ordre rek ñu ngi xamal ñu ngi jot ay interpellation fépp ci Dakar ci ay nit yo xamante rek nonu lañu mel muy ay acte terroriste yi nga xamante rek ñu ko daan tek ci réew mi boba tay à la fondation de la première dame Marine Faisal. c'est le quotidien qui donne la nouvelle de ce vendredi 25 août 2023 la fondation Servile Sénégal de la première dame Marine Faisal n'existe plus elle a été dissous euh, la décision a été actée le 11 août dernier Madame Dal, fondation Servile euh, Sénégal bu Marième Faye euh, salle. état du Sénégal a été koy Nous avons ngi jël décision le 11 août dernier Nous ñuy xamal ni rek en 2014 Mariam Faye salle ak journaliste bi di Aliou Fall mi nekkoon administrateur euh, bu fondation bile bëggoon nañu dissoudre boobule euh, mbir mais nag ki nga xam ni moom mooy Penda Mbow euh, bu ci bokkoon nag moom moo ci opposé woon mais finalement daal dissoudre nañ boobule fondation bu Mariam Faye Sall du le Sénégal. ñu delluwaat ci beneen information plusieurs détenus Pastef mettent fin à leur grève de la faim. suite à un mot d'ordre de Ousmane euh, Sonko maanaam détenu yi nga xamante ni rek euh, ñoom ñoo doon euh, observer grève de la faim ginnaaw bu ko Ousmane Sonko digalee Ousmane Sonko nag moom moo leen demandé. kenn ku nekk ci ñoom na arrêté li nga xam ne rek moom mooy grève de la faim bi maanaam moo door Ousmane Sonko nu lañ ko euh, bindee ba tax na rek ñoom ñëpp arrêté nañ lu ni mel waaye Ousmane Sonko moom ba tey mu ngi wëyal li nga xam ne rek moom mooy grève de la faim bi moom ak euh, Cheikh Bara Ndiaye ak euh, Mouhamed Samba di Hannibal Njim ginnaaw rek ñoom ñaar muy Cheikh Bara Ndiaye ak Mouhamed Samba Njim ba ñu nekkee fële nga xam ne rek moom mooy réa ndaxte na seen état de santé Euh, commencé woon di gën di dégradé wu parce que ñoom ñu ngi continuer ba tey di observer li nga xamante ni rek moom mooy seenu cet ñu ñëw ci euh, Pape Alé kàddu yi nga xamante ni rek yëkkati na ko nee na la mort de Sonko serait l'idéal euh, pour loolu la ko loolu ko daal di bindee ci information nag moom Pape Alé Niang nag nee na ginnaaw délégation bi nga xamante ni rek waaye yeewi def nañ ko fu li nga xam ne rek moom mooy Touba li nga xam ne Sëñ Mountakha wax na ko waaye nag moom jàpp na ni moom euh, Macky Sall du séddee ci li nga xamante ni rek euh, moom mooy yëfu usmaan Sonko même bu fekkee ni sax mun Mountakha daf ko ko digal sax du bàyyi ndax bu ñu fàttalikoo Serigne Cheikh Saliou euh, Mbacké xalif de la famille de Serigne Saliou Mbacké moom mi nga xamante ni respecté nañ ko lool ci hiérarchie bu Mouride moom moo nekk ku njëkk a demandé Macky Sall mu mu bàyyi Ousmane Sonko wala moom moo njëkk intervenir ci boobu les dossiers mais Macky nanguwul kon yaa jàpp na ni même fekkee sax sëñ muntaha euh, Bassirou Mbacké xalif général des Mourides wax ko pour mu euh, baye Ousmane Sonko du séddee muko mom Pape Alé dal daal lu nu mel la daal di wax. ñu tëjee ak euh, politique l'annonce forte de l'ancien footballeur El Diouf après avoir été connu en tant que footballeur et ensuite en tant qu'ambassadeur itinérant pour les équipes nationales est-ce que nous verrons un jour El Hadj Diouf devenir membre du gouvernement Mom dal question bobu lañ ko poser euh, fofu nga xamante rek euh, euh, mom moy fam doon defee émission observateur nag mom mo publier l'uni mel nenañ nañ El Hadj Diouf maanaam écarté wul lu mel waxu ci manam comme si que mom intéressé wul mais lum ci tontu dal

pour la première fois dibiteri professionnalisé professionnel ndawal musoko ko am suñu marinade bop, am suñu bop, am suñu secret bop. Nanga nga Non ni la McDonald amé ay secret non le dibiteri Uba amé ay cream. dibi Uba Safiap, Ouba. Uba Ouba. Uba poulet ouba, pigeon ouba, pentade ouba, bol ouba. kaay ma wax la fait dibi 77 629 0000 fa safia Moi neexee 77 633 57 57 Fu Michui nehe. Moi dibiteri ouba fa poulet neexee mooy dibiteri ouba tena nag kaay wax la dibiteri ouba commandeel livrer le fangané. boule ne tamit nga tok sa kër de defal commande Tabaski de say commande bo amé xew defal say commande booy dalal ay nit defal say commande nga xamni débiteur débiteri Uba dalay defal méchoui bu tok do defal dara débiteri Uba livrer la cey Uba moo jaaxal réew mi yow mi am jafe-jafe ci wàllu néew kattan sa ndoxu awra baaxul wala sax sa awra nooy kaay ma jox la solution bi ci gën a gaaw produit 100 pour cent bio baa ngi nii muy produit boo xam ne dafa naturel amul benn effet secondaire dañu la koy jox nga boole ko lem ak limon di ko naan matin ak soir mu daal di saafara say jafe-jafe neexal sa biir néegu sëy am nañu pommade boo xam ne boo ko diwee ci sa awra mu daal di kuy dëgëral di jël ko waaye nag du ko guddal ma ne la bile pommade moom itam dafa naturel lépp loo ci jël